bi xeex bi tàmbalee président dafa def benn euh, act boo xam ne Sénégal yëpp la ko defal mooy dafa déclenché li ñuy wax aide alimentaire aide alimentaire boobu commune Patte d'Oie am ci 3574 bénéficiaires mais ñu ne loolu ñun jàpp nañu ne euh, dina laal askan bi lu bëre mais du ko mate ñu réunion en conseil municipal wax ni ñun itam dinañ ci dugal suñu loxo mais buñ koy def koy def ci les règles de l'art maanaam dañuy woo conseil municipal bi ñu waxtaan ci ba déggoo ci euh, génne enveloppe ci la ñuy génne enveloppe cent dix-huit millions ñu ne fukki million yi ak juróom-ñett moom mooy dem ci wàllu garab yi ndax booy xeex dara tamit da ngay fexe ba structures yi nga xam ne ñoo koy xeex nga mun leen dooleel mais bu loolu weesee aussi ñu jël téeméeri million ñu ne dinañ fexe ba jënd ci ay daare xawoon na nag jafe xawoon na métti ndax ñëpp xam nañ ni dëkk bi actuellement wàllu denrée dafa dafa jóg ndax ñepp koy laaj mais ñu fexé ba tay ji bi commission bi réuniré ba paré nañu dafa bëgg chaque bénéficiaire muy 2300 ménages chaque ménage am sakku ceeb bu fukki bu bu juroom fukki kilo ak euh, fukki litre dëwlin ak fukki litre sucre ak benn pagu savon bu def 18 ñu né ah commission bi laaj nako xeyna metti na mais dinañ fexé ba collectivité bi jëne ko

bon yi mu joxe moom la ñu tey commencé nii di génne ku ci ñëw daal di nga am sa cinquante 50 calories am sa 10 litres huile am sa 10 litres dawlin am sa savon. RNU bi man suma ci benn problème ndax ñun suñu si RNU ñëpp jox nañu ko et puis on a le fichier euh, électronique jàpp naa ne aussi aide état bi actuellement bii jëm ci commune bi ñu ngi koy waajal mais ñun dañu ne comme xaar bi yàgg na te ñun aussi dañuy accompagner état bi. lu baax moom boo koy def da nga ci gaaw moo tax tey ji ñu baral mbir mi mais aussi di wax ne état bi moom dañu jàpp ni sax moom état moo ëpp doole état dafay joxe fu mu joxe 100 kilos ñun ñu joxe fa 50 kilos am na ñeneen ñoo xam ne seen loxo jotul seen digg gannaaw 25 kilos lañu joxe am na ñeneen ñoo xamante ni xëy na joxe nañu benn butéelu diwlin wala benn butéelu eau de javel mais ñun fexe nañu ba joxe 50 kilos ceeb joxe fukki litre diwlin joxe fukki kilos suukar joxe aussi saabu boo wëree dakaar jàpp naa ni li fi commission at hoc ak mairie Patte joxe bu weesoo état ñi ñuy ñi ñuy ñi ñuy ëppal ñi ñuy ñi ñuy bëree ñi ñuy ra ñi ñuy jiitu du bëre mais nag mbir mi du jiitu wante leneen li aussi li ma bëgg wax mooy yéex na mais wóor na ndax ñun dañu xaar ba am approbation dañu xaar ba e, ba conseil municipal jox ñu ci ndogal ñu ñu koy doog a def donc loolu yëpp dafa di ay dispositions yoo xam ne ci wàllu marché public danga ko war a da ko war a respecté te nag fi mu nekk nii. Nous avons fait une transparence parce que 2300 ménages 2300 ménages aussi dans Dakar C'est le commune yi nga 2300 ménages pour nous, leen dimbal nous avons du donc ne problème actuellement nous sommes prêts. parce que l'état, commune pas commune la commune commencé pour déployer Dakar ñu ni tamit euh, ñu ngi euh, xam nañu ne balaa yàgg bu état bi dina ñëw mais avant muy ñëw ñu ne xaaral ñun aussi ñu joxe suñu bos.